waaw kii nag benn paa benn paa bu dëkkoon Medina xam nga Medina moom ay deux cent cinquante R4 ak deux chevaux ñoo fa nekk di daw paa bi nag am post bu bees ministère de l'intérieur laa la wax nii kaay jox ko benn 4 x boo xamante ne macha allah mu ñëw nag mu ne 4 x bi buntu gàlle bi la koy gaare ñëpp gis ni moom dawalatul deux cent cinq moom léegi ci 4x4 yi la nekk. <laughs> mu ñëw rek premier jour bi rek teg 4-4 bi bunt bi gaa wax nii pour gars yi gis ko dugg ci biir am benn booy bu romb <laughs> gis nga 4-4 yi dañ ciy bind noonu 4x4 ci bi <laughs> booy bi romb gis 4 fois 4 bi jël xeer rek dóor égal 16 <laughs> yox yom paa bi ñoo génn gis égal mais tuuti mu xam bu mu gisee égal 16 bi jël oto bi yóbbu gars yi defaraat ba mu naaj dóoraat 4x4 ba mu rafet ñëw deuxième jour mu tegaat ko pour ñeneen ñi gis. bu gàlleem toog rek booy bi jaaraat gisaat fois 4 4 4 fois 4 rek jëlaat xeer dóor égal 16 yox yoxam <laughs> paa bi génnaat 10 loolu ba xamul lu muy def ret paa bi jël oto bi dem yóbbu ci tëlier bi ne ko dóoral ma 4 fois 4 égal 16 comme ça booy bi kontaan mu bàyyi ma tëlier bi defal ko ko ba mu nice paa bi ñëw nag oto bi ne léegi booy bi na ma bàyyi ñeneen ñi gis oto bi paa bi dugg gàllam même boobu rëmbaat 10 4 fois 4 égale 16 rek mu jël xeer mu dóor très bien <laughs>